waaye gërëmal nu ko waaye araf bu ne mu bindal na ci tiyaaba joo xam ne du am fenn foo xam ne foofu lay yem waaye nag yàlla na nu ko dénkal sunu balaasu misaan bi ñi indiwaat geneen xasida ci xasida sëriñ Tuubaa yi muy xasida goo xam ne ba tey sëñ baa ngi ko tënkee rabion al awal rek ba tey comme ni ñu ko baaxoo di leen ko toppal mu dalee fii bisimillahi sëñ bi na maa ngi tàmbali sama xasida gi ci turu yàlla arrahmaani buur bay xéewalaakoon bépp mbindeef ci aduna arrahim buur bay ajiram ku ko soob ci àllaaxira gannaaw bi mu tàmbali bisimillahi rahmaani rahim na rabbi xool awali liya maanaam boo déggee mooy rabbi xool awali liya mooy maaka moom gannaaw bi mu tàmbalee ci bismillah yàlla mi nga xam ne mooy xéewalaakoon bépp mbindeef ci aduna ña ko gëm ak ña koy weddi waaye arrahim yàlla mi ajiram ku ko soob ci àllaaxira mu ne rabbiya gërëm na anniya ci man man Sëriñ Tuubaa gërëm na ma kan moo gërëm mu ne rabiixu awali weeru gàmm ci boppam rabiixul awal mooy weer wi nga xam ne ci la yonent bi gane jamono ci fukki fan yee ak ñaar li gën a wér ci borom xam-xam yi nee na ma ne leen weer woowee moo ma gërëm waxuma leen keneen de waaye nag gërëm goo xam ne bi xëyri suxtin ci lul ak sànj bu ñàkk gërëmati dootul ci am waaye nag li gën a mooy xen si la ars ci fa yàlla muy borom aras alwaali tey aj méngoo biri yi kanaa jeex na mu ne weeru gàmmu gërëm na ma ngërëm loo xam ne ak sànji dootu ci tegati waaye fa ma gërëmee dafa dem ba fa yàlla Sëñ ne weeru gàmmu moo doxal boppam ay tànkam ba ci yàlla no ko Ahmadou Bamba gërëm naa ko kanaa kii lim def ci gàmm ak lu bind ci gàmm kenn xamu nu mu toll moo dox ay tànkam ndeke gàmmu daam tànk Sëñ Tuubaa ne ne moo dox ba ci yàlla no ko Ahmadou Bamba gërëm naa ko xaw ma kan de def naa ne lii moom rek moom lañ dégg moo ko bi xëyli suxtuñ ci luru ak sànji waaw waaw xenda silence yi fa yàlla muy borom aras alwali muy aji mbéngo bii foofu la weeru gàmmu dem na ma Ahmadou Bamba gërëm naa ko bara ani seetal na ma min ku la ay bin ci bépp wiis bépp ayib wa marat ak bépp tawat waxaade ni woo mu wommat ma ilal jinaani jëmee ma tabbal ma ci bit aljana ya bil xarat ànd ko xememteef ya nekk ci bit aljana ya ma nekk fa nag fa tabaarakallah ci bit tooli sar mu ne weeru gàmm setal na ma ci bépp ayib ndax weeru bu xasee ñëw rek du ma am jot weeru safar sax dama koy màggal weeru gàmm jumaadal ula jumaada euh, saaniya ba ci jumaada saaniya jumaadal uula ba ci jumaada saaniya sax Sëñ Tuubaa da koy màggal ngir gàmm ko ku fonk lool koo xam ne day gunge gàmm ba weeru rajab di dugg si rabiul awal rabiul saani jumaadal uula jumaada saaniya lépp Sëñ Tuubaa da koy màggal moo tax mu ne bara ani setal dama min kule aybin ci bépp wiis bépp ayib wa marat ak tawat waqaade nii waaye mu woomoon ma nag ilal jinaan jëmee ma ci aljana bil xarar addu ko ximam tiif ya mooy la nekk ci biir aljana léegi weeru gàmm moom woo ma dugal ma ci biir aljana noonu fu la neex lekkal kër yaa ngi nii allahu akbar nee na yuquudu dana wommat lii ñeel ma ilaa duqul ya bakki rek may tabbi aljinaan aljana ya lan moo lay womat mu ne mawlidu ganek jamonoog ahmada mu mutayaba mi nga xam ne mooy ki teeyal aljanam sama xol nee na ganeeg jamono yonent bi alayhi salaatu mi nga xam ne moo teeyal sama xol nee na maanaam gane gim gane jamono ci weeru gàmm nee na ci jëmmi boppam moo may wommat ba keroog may tàbbi aljana waaye nee na xaddaniya limaale na ma allahu yàlla min ahli badri ma bokk ci waa ahlu badar jihaat kom ni jihaatee ndax sahida lii rabbi bi anni jaahidu nee na yàlla moo seere na man jihaat naa comme ni ngeen jihaate ci xare badar moo tax mu ne yàlla limaale na ma ci ma bokk ci waa ahlu badar te kenn mënatu mu faa génne bi xayri makrin ci dul benn pexe nag pexe mayun ma ko la tax ma bokk ci ahlu badar ah pexe mayun ma ko de raafian mbir mop muy aji yëkkati nag moom yàlla li qadri ñeel samay daraja yàlla mi ma limaale ci waa ahlu badar te pexe mayun ma ko waaye nag yëkkati sama daraja waaye lan ngir li may màggal juddu yonente bi alayhi salaam li may màggal juddu yonent bi am na feneen foo xam ne daf na addaniyal baaqi min ahli badari bi mawlidil muxtaari alil qadari màggal gi may màggal juddu yonent salaam ci la may yàlla boole ci waa ahlu badar waaye isaa xatattu saa yu ma am na ñuy def ci xasida yi nag isaa xatattu waaye benn la rek isaa xatattu ba tey mooy saa yu ma bindee ixtasal daal di jaay yëngatu gësamu bëngeen kontaan xarsullahi arasug yàlla gi xaras mooy jëmm joo xam ne li yàlla bind lépp mu ngi ci roon aras am na juróom-ñaar fukki junne suraadiqaat te suraadiqaat bu ne ak bindeef yi fa nekk ñu ëpp ñu nekk fii ci kaw suuf tey ci adduna maanaam suraadiqaat bu ne ña fa nekk ci ay bindeef ñoo ëpp ñu nekk fii tey ci kaw suuf sëñ Tuubaa nee na aras moom nga xam ne li yàlla bind lépp ma ngi ca ron nga yàlla saa yu ko tuddee ci alxuraan ne lu màgg la wa huwa rabbul arsil azim rek lay wax ci ci alxuraan nee na ma ne saa yu ma sama xalima gi rek aras ak malayka yëpp ay jaayu kenn du taxaw wa sabbahat dal di sabbal malaa'ikullaahi malaaka yàlla yi ñoom ñëppay sabbal bu ma yëkkatee sama xalima képp képp laa leen wax nag ñëppay sabbal kenn du des in qaada wommoot na lii ñel ma fii kitaabati ci sama biir mbind alxuyóor yiw yi te nuuru ñu leeral danañ sax dàkk di leeral lii ñel ma al awtaanu samay dëkk yi du duyóor ak samay biit kër yi kenn du sëñ Tuubaa mu ne wommatu na ñëw ci man mboolem yiw yi dugg nañ sama biit xasida yi sama biin mbind mii waaye nag duñ yem dugg ci biir mbind mi waaye sama kër yéeg sama dëkk yëpp maanaam yiw yi dañ fay dugg di leeral kër yi waaye nag di leeral dëkk yi xaada woobu man na ilee jëm ci man allahu yàlla yum nal xëtti sama bind bi maanaam yàlla mat na ko waaye nag wommat da tëbb na mooy tàllal na bu fekkee wommat da nga def rabbi sama borom araaxal loo xam ne maanaam noflaayal na ma matti sama taxañ maanaam loo xam ne bu ma waroon a dox bu ma waroon a dox distance junni at benn ngont yàlla taxañal ma ko nga xam ne da da dama cee noppaloo dama cee am naflaay du ma sonn du ma dem fenn loolu maa ngi ko amee maanaam ci sama barke mbind bi ci la ma yàlla woo ma tëlee loolu yoon yu nit gaa yi baax yi doon dox yépp yoon wu sëri yoon wu talli yoon wu sëri nga xam ne ku koy dox junni at benn ngont képp waaye loolu war nga koo gëm nag ndax yàlla def loon na ko yonente yàlla Suleymaan waa xudduwaa sahrun wa waa sahrun wa asalnaa loo aynal xitri Suleymaan bu bëggoona dem fu mu bëgg dem ngelaw yi lay war ñu daje yóbbu ko ngoon lu nit war a dox weer benn ngoon mu ñëw moo tax mu ne wa maddu tàllal na rabbi sama borom matti sama taxañ maanaam wa madda tàllal na bu fekkee wa maddu nga def rabbi sama borom araax loo xam ne naflaayal na ma matti sama taxañ maanaam li waroon dox yépp léegi yàlla daf ma ko tàllal taxañal ma ko waa jaxani jëmale na ci man taayiidu loo xam ne daf may dëgëral sil hay soomi ki nga xam ne mooy borom hay soom te muy jibril mus diir ba nga xam ne saraxoo dana ko kontaanloo fii xidimi sama liggéey bii lësoo mii te mooy sama lësoo mala sam laahu akbar nee na yàlla moo jëmale ci man loo xam ne daf may dëgëral muy jibril ci jëmi boppam hay soom boo ko déggee mooy jibril fas wam daan war moo tudd hay soom ne nag sama liggéey bi muy tagg yi muy tagg yonent bi lépp ak xeeti cant yàlla nga xam ne lépp li ci ëpp ay xeeti lu som malaay sam na nee na lépp lépp lépp da koy bégloo moo tax ne waa jeexaan yi jëmale na ci man yi du loo xam ne aji dëgëral la ma sil hay soomi ki nga xam ne mooy borom hay soom muy jibril mus diir ba nga xam ne saroxoo dana ko bégloo fii xiddi bi sama liggéey bi lu lusoom yi sama lusoom yi muy lusoom malaay sami waa jeexaan yi jëmale na ci man moom yàlla nuuru lisaanal arab bi leeruk làmmiñu xaraab sàmmana xurbati ci sama jamonok tumuranke li hubbil xurbi ngir soppuk jege ga nee na yàlla jël na làmmiñu arab leer ga ca nekk xam nga mbir mu ne leer la am boo dinee leer ga dara dootu fa nekk nee na yàlla nag leeruk làmmiñu arab la rocc jox ma keñ ba ma nekk ci sama tumuranke ba waxoon ne nusa alil islam inda xurbati la dal jasairi mu ne turbati fii mu ne yàlla leeruk làmmiñu arab la rocci jëmale ko ci man keñ ci sama jamono tumaranke bi ma nekk ci tukki ba ngir lan ngir sopp ma rek ak ngeer jegal ma boppam ngir jaamu gi nga xam ne moom laa koy jaamu moo tax mu ne sàmm na xurbati ci sama jamono tumaranke bi ci la rocci leeruk làmmiñu jox ma ko li bi ngir bëgg alxur bi ak jege ngir bëggal ma ak jegal ma boppam lam yan fu nii du ma jublu mukk waxta taallumi ci waxtu sama jàng say un dara loo xam ne yóodi day jooxe li laqab li laqan jëm ci ak neen aw li waxoon yëpp wala ci ayib nee na lenn sama waxtu jàng nee na suñu borom daf may xamal ay kumpa ba noppi nee na lenn sama waxtu jàng nee na suñu borom daf may xamal ay kumpa ba noppi te mboolem loo xam ne neen la wala ayib la nee na loolu du ma lu mukk te sun borom daf may xamal ci sama waxtu njàng rek sama waxtu njàng nee na ci la may suñu borom di xamale ay kumpa te lenn loo xam ne day jooxee maanaam day yóbbu nit ki muy def ay neen wala ay ayib nee na loolu du ma moo tax mu ne lam lam yan du ma jublu mukk say un dara loo xam ne yóot yi dana jooxe li laqan jëm ci ak neen aw li xoyob wala ayib waxtu taalimi te waxtu sama jàng suñu borom daf may xamal al xuyub ay kumpa nee na saa yu may jàng rek suñu borom may xamal ay kumpa lisaaniye samay làmmañ ixtama suñu borom aar na ko xanil iftira i walis a duut wa kalkali ak sama xol sama suñu borom àll na ko wa fustu tuufu naa bil xaraa i ci keemaan yi xaraa i mooy maanaam yu keemaan yi rek nee na suñ tubaa nee ay xar baax ay mujisaat yu keemaan yi daal nee na man tuufu naa ci làq naa ci mboolem keemaan rek suñu borom defal na ko moo tax ma ne sama làmmañ suñu borom aar na ko sama làmmañ du wax lenn loo xam ak duut la loo xam ne du dëgg wala dañ ko sos sama xol suñu borom aar na ko waaye tuufu naa ci keemaan yi bil xaraa i ci keemaan yi nee na yuqudu dana mat lii ma yumnu rabbi al awli barkeb rabbi al awal bi lanti xan ci lurut am yemukaay lan lay womat mu ne faddala si la arsil wali ngëneelug yàlla muy borom ars ji waaye nag alwaal yi tey aji méngoo mbir yëpp nee na weeru rabbi al awal moo may wommatal waxul yonent bi de weeru rabbi al awal ci boppam mooy wommatal jëmi sëñ bi ay ngëneel yoo xam ne ci yàlla la nekk ay conteneur mu koy wommatal di ko indil yoo xam ne du am yemukaay ka akbar mu ni subhaana rabbika tudd na ma sell ak gudd bi rabbil izzati mi nga xam ne mooy borom ak tedd nga xammaa si foon wala si lépp loo xam ne dañu ko melal ci ay doom ak yi ci aju wasalaamun jàmm alal mursalina yàlla nekk ci mboolem ñi ñu yónni ña wala xam du melaw sax dakk te rafet lillahi aji sax la ñeel alji sax la ñeel yàlla rabbil alamina moom mi nga xam ne mooy borom bi defi bisimillahi rabbil alamina kon boobu beneen rabbil awal sunu bindëb suu bi lay nekk incha allah yàlla nanu yàlla defal dégg ak topp wasalaamu aleykum